Spirit. mbokku téléspectateurs yi nga xamante ne si topp seen site bi di point info ngeen di ci ànd ak Ndeye Thiam Saliou ci anam bi nga xamante ne si noonu ngeen ko bëggee ginnaaw loolu nag ñi ngi nuyu xalif général kullu mouride Serigne Mountakha Bachir Mbacké ñaanal ko yàlla yàggal ko fi lool te ànd ak wér ba li mu yéene liggéeyal Serigne Touba mu def ko ci ni mu ko bëggee tey nag bu ngeen gisee fii ma taxaw ne maa ngi daaw islam danki ci màggal gi nga xamante ne si sëñ Moustapha da koy def doomu Serigne Fallou ibnu Serigne Modou Moustapha Mbacké chaque année daf koy def ren di 19e édition ngeen di ci ànd ak Ndeye Thiam Sall mu indi li nga xamante si moo ci màggal gi li ko dalee ci ziare jàngum alxuraan yi wàccam ba ci waañ wi bernde yi duñ dara noonu ngeen koy ànd ak Ndeye Thiam ci ni ngeen ko bëggee ba toute la journée ci màggal gi nga xamante si moo daaru islam dànki ñu ngi leen jox dig daje ba ci kanam incha allahu rabbi ci anam bi ngeen ko bëggee Reconoce julli ci sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne ne la way kat ba tagge ci min judika dunya wa kharratiha wa min ulumika ilma Allah wal qalami xam ne budut ko nak mom lenn du fi ne ba lenn di fi sosu ñi ngi ci jotay bi ci dekk bu tedd bi di siyaare kilifa yu mag yi xane ñi ngi ci suñ kanam xane lépp lu ñuy def walla lépp lu ñuy wax ci seen ndigal ci lañ koy defe ñu taxaw tey ci dëkk bu màgg boo xam ne histoire démb mayoon na ko aw lef ba tey jii la sëriñ bu mag ba waxoon référence bu mat ba référence monsieur Cheikh mbake gayne Fatma la mo waxoon ci dis bam defone ci 1954 ne wa wa alal khalaf an asar as salaf ñu di ci siaré bu baax jëm joju xamna tay moy khalaf bi nga xane mo defal siyana salafi mo Cheikh Mouhamadul mustafa ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal ñu ñaan suñu borom yagal ka fi lool ak mbollem njabot gi. ak mboolem bokkam yii xane ñoo ànd taxawu bis bi ñu baaxoo bis bii bu ñëwee ñu fàttali ko fa suñu sang bu baax ba sang boobee xam ne mbooleem ab coonoom mbooleem ab liggéeyoom lépp xidmatul islaam yi la ko nekke woon mooy liggéeyal lislaam ci la doon dund taxawu lislaam taxawu njabootuk lislaam ci la nekk woon ci anam yépp ak dundam lépp ci la ko jeexal muy dund gu gàtt ci buñ ko dee wàññi ci ay weer ak i waaye ak dund du gàtte ci noonu nit dana dund at yu néew waaye def fi loo xam ne histoire dootu ko fàtte tey jii ñu di ko fàttaliku mu bokk ci sang ya nga xam ne sëriñ bi da daan wax naan xoqal bukaa wa ala saadaati amwaati mu bokk ca ñoom ñooñee ñu baaxoot bu ñëwé ci bisam bi ginaaw buñ jàngé alquran jàng xasida waajal ko ci bis bi bu bis bi ñëbé njaboot gep dajalo and teew fi ci bis bi jëmmal ko liñ daan def ci bu wër wi teroo wala ci wër ba wër wa déllu si bu bis bi ñëwé ñu jëmmal ko ci am jàng ak waxtaan lo xamne dana delo ci wat njabot gi ci ñu xam lan moy sen taxaway lan mooy seen war-war ba weer wi dellu si loola nekk bind tey jii ñu amoon benn boroom xam-xam boo xam ne du jar ñu di ko présenté waat ndax xam nañ ko ci jotaayu murit yépp muy sëriñ Ahmadou Njaay ngeeraan muy boroom xam-xam boo xam ne ak xamam aku xamem aku royam mag ñi rek doyna dañ wax ne ab indicator jëmm ji ji rek day yaré au lieu que mu nana defal ni waye so gison rek dana doy seuk ci yow nga mëna roy ci mom kon du jar ñu diko présenter tem bi nga xamne mom lañu bëgg waxtane moy tem bi ëpp solo wala yi solo ci la bokku mooy temub xëyamul waxti ala salaf mooy importance bi nga xam ne waxtu doomu aadama am na ko ak nan la ko mag ñi doon consommer mag ñi nan ci lan lañ doon jeexal seeni waxtu loolu la ñu bëgg a waxtaanal muy lu mat a bàyyee xel ndax la waykatu arab ba waxoon rek ci lañ nekk dañoo nekk ci jamono joo xam ne évolu évolution bi ni muy maanaam taxaddum bi ni muy defee ni muy ni ñuy ni muy màggee doo yëg ne sax yaa ngi dem da ngay jekki-jekki rek dugg ci biir kàmb goo xam ne foofa nga yem bala ñu faa àgg na kon ak fii jamono toll kenn ku ci ne war a dellu nag ca mag ñi ci lañ nekkoon ba seenug dund jeexut ba fi ne ñu di leen fàttaliku kon serigne Ahmadou ci loolu lañu bëgg a waxtaanal ñu kon ñu bàyyi ko xel bu baax te déglu ko te fas yéene jël ci bind boo xam ne dana jodey sëkk ba weer wi dellu ndax loolu dañuy wax ne jàng am na solo waaye Seydina Omar Ibnul Xataab dafa am lu am solo lu mu daan wax suñu borom da koo nattoo woon ak mokkal bëri wu ko lool waaye da daan wax naan sallallahu alayhi wa sallam de man damay fexe ba lépp lu mu wax rek man ma fexe ba defena lolu moy lépp solo kon it yàlla nañu suñu borom may ci waxtaan wi sam'an wa taa moy liñuy deg suñu agge ci kër ga man ko jëfe ndax lolu moy li ci am solo a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وقديمه سير الدوان والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي جلدي بقي طالبي نوغي لين دي نويو تدي لين زيارة كان نكون أب نويو أكوب زيار بمينغو أكو أتشواي بلا سن برام جوخ دي جارة لين نويو بي أك زيار بي نك كي كيليفك كتايبي دي نيان سن برام جوخ gàttandu nu defal nu tawfiq barakati Cheikhil Khadim di nuyu mboolem kilifa yi ci biir jataay bi yëpp nuyu mboolem taalibe yépp nga jaarale ci Serigne Moustapha mi woote bés bi te ci jaarale nuyu bokk yi ak xarit yi ak wëllër yi ak am di jàmm yépp yàlla na leen suñu borom gàttandu te li leen mag ñi bàyyee ngeen di ko sàmm yàlla bu ci dara sikk barakat Cheikhil Khadim di yëkkati sunu kàddu rek ni ko mbokk mi waxe léegi muy kàddu fàttalante rek kàddu layante biir kàddu soññante ndax jamono laaj na ko ci doxin bi fii nu toll lu tax mooy la baaxoon démb démb la gën a baax te la bonoon démb tey jii la gën a bon kon dafa mel ni soppiku am na aw doxin wu kenn xamut fan la ñu jóge am na rawatina ci jikko yi rawatina itam ci jëf yi te jëf yi jikko yi ñàkk normal rek moo soppi jëf yi mbokk yi bëggoon ñu waxtaan ci waxtu am gi mu am solo nga xam ni ci la lépp di yéwéne ci la lépp di yàqo su sa waxtu rigé sag dund dana riis waaye bu waxtu wi nasaxee itam sag dund lépp dafay nasax mu mel ne nag mag ñi amoon nañ ci ay taxawaay amoon nañ ci référence yu wóor yoo xamante ni mënees na koo jële ci ñoom ngir mépp ci seen jéego yi ginnaaw bu ñu xamee nun ñëpp ni lii fi nekk nun sunu ngóor indiwu ko fi njàmbaru mag ñi la kon du jaadu waxtu wu ci nekk dafay war nuy xentu seen mboor di toppatoo seen jeexital te li mag ñi waxoon isa iza aradtum an taarifuna fattabiu na bu ngeen nu bëggee xam topp leen suñ mboor tilka na ñu ni loolu mooy seeni jeexital te mag ñi dundu gu am solo gi nga xamanteni ni dundu nunyep nañ ko nun ñëpp maase nañ ko xam ndax nun mag ñi seenu gent lañ dëkke seen lañ yor ci seen barke lañuy dundu ci seenu liggéey lañuy sagu ba pare dëkke seenu gent kon bu ne mag ñi jambar lañ ñun ñëpp danañ gëm amut benn xel bu cay xel yaar te toujours mooy li may faral di wax rek ni buntu kër boo fi dem dàll ya bari ci buntu néeg ba ka ñuy booxante yoonam nekku ci ka ko lëggéen ci armée li tëdd kooko nag sunu wéetee war nañ koo ñaanal bu nu wéttali ko war nañ koo waxtaane te mooy mag ñi nu am ñëpp taxawaay yooyu lañ am te mag ñu tedd yooyu ñu am li ñuy waxtaane ci ñoom biñ koy jëf seeni at bariwut mboolem mag ñi ñu am rekk ci yoon wi li nu naw ci seenug dund ba di ko waxtaane biñ koy waxta biñ koy jëf seeni at bariwut kon seenug farlu ci seen waxtu moo tax seenug dund mel noonu waaye bu ñu yaafuusoon dara du am waxtu nag ay noo la rek yu bari noo yooyu yi fi muy jóge dafay jeex ndax dañ ko limite kenn ku ci nekk da nga am lim buñ la ci jox kon li war mooy waxtu wuy génn na génn ci lu am njariñ mooy tax pertement du am Sëriñ Tuubaa mi ngi wax ni genn noo moo gën àdduna ak li ci biiram wurusu foora foor la jawhar la woo xamante ni ni mën nga caa jënd marchandise mu seer waaye ci kaw nag nga xam noo koy jëfandikoo mu mel ni suñu delloo ci nattub boroomu xam-xam yi dañuy wax ni nit bu dundé juróom benn fukki at yoo xamante ni bis bi set nga nelaw ci 7 heures de temps suñ ko xaymaa ñaar fukki at yi da ko nelaw nit bu dundé juróom benn fukki at yoo xam ne bis bi set dana ci nelaw 5 cinq sept heures de temps suñu xaymaa juróom benn fukki at yooyu ñaar fukki at yi da ko nelaw mu des léegi ñeen fukki at ñeen fukki at fukki at ak juroom ñetti l'islam toggu la ci jëf kon nga dese ñaar fukki at ak ñaar yoo xamanteni ni ci nga war a tabax sa aduna ci nga fi war a def loo xamanteni say empreinte dana marqué ci histoire ci nga wala liggéeyale itam kër ga la ñu jëm nga xam ne dara du fa jeex te moo taxoon ñëpp di sonn loolu su fekkente ni bàyyi nañ ko xel dana tax nu gën xamaat bu baax baax fi ni teg suñ tànk fan la te yonent bi sallallahu dafa waxoon saxaaba yi ni leen na ngeen lëggéeyal seen àdduna ba jàpp ni du ngeen fi jóg waaye na ngeen waajal seen ëllëg ba mel ni tey ngeen di dem loolu itam bu fekkee jullit bi bëgg na koo dund faw mu xam dëgg dëgg nag li mu am ci waxtu nan la koy utiliser te bokk yi ñun ñëpp bu ñu maasee seetlu danañ gis ni waxtu yi nga xamante ni moom lañu suñ borom defal nu nekk ko fii ci àdduna li ci yàqu moo ëpp li ñuy jariñoo li ci yàqu moo ëpp li ñuy jariñoo te loolu doo xam ba xam sàggante doomu aadama la walla pexem seytaane la ndax iblis bako sun borom dakke ci yermanem ak legi nangotu la gis ku bëgg lu bax nangotu la gis ku koy wut nangotu ko deg ci nopam waxtu wu ci nek rek mi ngi fent ak créé lo xamanteni ni da fay sank sunu waxtu ba li sun borom bëgg ci ñun loolu du manam mu melni ni loolu itam mi ngi ci réussir té du jar ubbi téré yu bari du jar itam kenn ku ci ne nga may ko ñaari bëtt xol ba xam no nu mi def kenn ku ci nekk bokk yu xol bopam xol sa yu xeye ba jant bi so xol waxtu wi mu am lan la fi def li sey ci waxtu wi nu mu tollu ndax moy tax li ñëwaat su la fi fekke mana am jariñ moo tax mag ñi ci dégg giñ déggu àdduna dañ daan wax ni àdduna benn bis rekk la mag ñi dañ daan wax ni àdduna tey rekk la tey képp ndax démb wees na démb moom tëgatu la ko ndax démb jàll na kon tey rekk la suba ñëwagut te lu muy indi suba moom tegagu la ko kon tey rekk moo la ko teg li la tey teg nag war nga koo jëfandikoo ci anam boo xamante ni nii dana tax ñu fàtte démb dana tax itam ñu am yaakaar ci ëllëg loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax ñu gis ne kiy dund lu mu am ci waxtu doyut ndax ci lay tabaxi àddunaam ci lay fàggoo ëllëgam waaye ki nga xamante ne ni xas na génn àdduna moom waxtu wi amatul njariñ ci moom lu mu gën a néew moo gën nit buy dund lu mu am ci waxtu doyut waaye bu xasee faatu rek lu waxtu wa gën a gàtt moo ci gën mooy luñ ko gën a gaaw a moo gën ndax lu waxtu wa gën a diire rek suturaam di gën a xawee ndax doomu aadama noonu la ko suñu borom bindee kon bu ñu seetloo waxtu wi juróom benn fukki minute rek lay doon minute yooyu ay seconde la nooy yi doomu aadama di noy yi li muy calculé ne mooy noogu génn du duggaat noogu génn rek ñàkk nga ko kon war ngaa xam ci li muy génn lu mu doon na doon loola amal njariñ loolu mooy tax place yi may farakante ak nit ñi may jaxasool danaa leen tànn ba xam ñan nit la ñuy doon te loolu lépp sëñ tubaa waxoon na ci wala tujaalis xayra man bihi tuzaat diinan nu aqlan abadan tanal muraad mu ni boo bëggee am sa bëgg fexeel ba bul toogaaleeg koo xamante ni du la dolli dolli gi benn mu dolli la expérience ci sa wàllu àdduna wala mu dolli la ab yóbbal ci sa ëllëg waaye boo ko seetee ñaar yooyu amu ca jëru toogal yaa ngi yàq sa dund kon buñ xoolee bis bi mënees na koo natt ci nattukaay yi ñu jamono jox muy vingt quatre heures lay doon vingt quatre heures yoo xamante ni sept heures de temps yi mën nañu wax ni da nga koy nelaw donte bokk yi am na ñoo xamante ni danañ tëdd lu ëpp loolu waaye mag ñi moom bi ñu bi ñu xayma loolu mooy ñi ngi jàpp ni ñiy tëdd dix heures di yeewu cinq heures nga xam ni genn jaamu yàlla du leen raw waaye ñun. danañ ko puus léeg-léeg ba minuit une heure bu ñuy yeewu huit gën gaa teel ñi ci yor yëfi jàmbur waaye ñi ci def ci seen bopp moom neuf heures dix kon waxtu wi liñ ci nelaw bari na ñu xayma liñ ci jaamu yàlla waxtu yu juróom yi nit sunu borom jox julli gum ci man di doon boo ci defee dix minutes julli nga jeex kon waxtu wi ngay jaamu yàlla ci juróomi julli yi juróom fukki mi nit la léegi li des ci waxtu wi ndax fi mu war a dem la war a dem ndax niñ koy jeexale foofu la war a jeex wala déet foofii la jafe-jafe bi nekk li des ci waxtu wi rawatina nag jamono yii ñu toll nga xam ne nouvelle technologie dafa avancé dafa dox bu baax a baax te mboolem jumtukaay yi ñu tubaab yi sànni ñu téye ko ci sunuy loxo yépp yuy sànq waxtu donte am na njariñit loraange jim ñu lor nun moo ëpp doole lim ni jariñ ndax nun li liy yàqu ci sunu alal moo nu gën a metti ci liy yàqu ci sunu waxtu ndax liy yàqu ci sunu waxtu daal laalaale sunu diine te bokk yi amuñu lu dul diine bu diine yàqoo rekk mooy sunu àdduna yàqu na sunu àllaaxira yàqu na dara du ci jag te li ëpp ci waxtu yi yàqu dafa laal sunu diine ndax bu ñu seetloo li gën ci li nga war a jaamoo yàlla li ci des ni muy demee doy na kéemaan te loolu ñun ñëpp ko sentir ci suñu bopp dama xamul nag ñu ngi wut ay solution wala wutuñu ko waaye ñun ñëpp xam nañ ni waxtu wi li ci yàqu bari na benn ci jataay yi jataay yi nga xamante ni mi ngi am moo xam jataay yi diine yi la moo xam jataay adduna yi jataay diine yi néew lañ ciy jariñoo jataay adduna yi moom amu ci daanaka lu ci am njariñ jataayu diine yi lu néew lañ ciy jariñoo jataay jataayu diine yi nga xam ne mag ñi biñ koy créer la taxoon ñu di ko def mooy dundal ak bokk fàttalante war-war yi nga xamante ne ni dafa war ci seen diggante te soriwaay dëkkuwaay tax seenu daje du yomb ak itam fàttalante ay batalé yo xamante mag ñañu woto ñoo leen ko bayé won ak nak andando ci waxtu jaamu yalla yeleen fi fek ñu diko def lolu buñ ko xaymaa ci sunu jotaay legi dañuy gis ni lu mom lañ ci royé mag ñi waye la ci dess lepp jamono soppi nako ndax bu fekkente ne nii jataayub fàttaliku la bu dee ci yoonu murit day sëñ Moussa lañ ciy def référence ndax moo jëkk a woote bis wooteel ko sëñ Touba di ca fàttaliku ak a ñaanal sëñ bi moom day daa tegoon programme boo xamante ni nii jamono du ko weesu mukk ci ku bëgg a dox jëm ci boromam. xaw ma nag ku bëgg a jëm ci àdduna programme ba mu tegoon mooy damuy woo mag ñi ñu fanaan si la leen wax ñuy jóge distance yu sori dañuy teel a jóg waaye lam leen xamaloon mooy li ngeen di paase di ko ñëw mook li ngeen ma jox ma def ko ci sans poste ñooyam ndax seen yitte bopp yëkkatiwu leen wooteb sëñ Tuubaa boobu rek moo rek mo len jóg kon lañ doon joxe neenut lañ doon jox borom auto ya ñe len doon transporter di len indi lañ len doon jox neenut waye bañ ñëwé ci barab bay itam da len tobbil ay sas yu ñu wara bay moy jang alquran jang khasida def istighfar, def salatu ala nabi ñaanal ñadem ñaanal sun bop dajale alal togg aw ñam jox ko nit ñi ngir jublu ci ak jaamu yalla ñaan yi wowe itam sun borom yobbu ko ci téerub jëfub ña tax muy wote su mbolo ma dajé mu bind ab discours fàttali len li len war seen digënté ak seen borom fàttali len li len li len war seen digënté ak seen Tuubaa mi ñu topp fàttali len li len war ci seen digënté ñom ci seen bopp fàttali len itam li len war seen digënté ak rewmi bu ko defee discours ba ca jamono yooye communication demewut noona waaye mag ñi kenn ku nekk nañ ko sotti ba bu kuy dellu ci barab soo delloo da nga dajale dëkk ba ña nga fa bàyyi woon te dikkuñu wax leen ni leen ni lii laa jëli Tuuba bu boobaa keneen koo seen ci la neen da nga xam ne bakkanama ko ci yóbbu waaye lañ ko war a wax wax nañ ko moom doon noonu la doon jeexale ci waxtoom ci waxtu yu muy bu dee moom ci jëmbi boppam nag moom amoon na programme bu boppam bu muy dunde sëñ Tuubaa ca lañ koy royee moom programme dundi boppam gis naa benn tubaab bu ci bind mu doon wax ci emploi de temps sëñ bi muy wax ni sëñ bi saa yu musaan julli fajar ba ba yoor yoor di ba ba tisbaar di jot nee na boo ko gisee yurutub téere it bu tuñuy raf alxuraan lay jàng nee na heure boobu moom alxuraan rek lay ci jàng bu tuñi raf alxuraan lay jàng waaye nee léeg-léeg mu yor téere bi waaye léeg-léeg du yor téere daan ni diggante tisbaar ak takkusaan nee na ci la sëñ bi daan bind xasida moom loolu la wax ni bu takkusaan jotee jëm timis nee na sëñ bi day dàkk benn koñ ci kër gi toog fa toogaayam yooyu nga xam ne fu mu toog day toog toogaay cogandiku boo xam ne da nga naan lee mu jóg nga xam ne ni ci kaw tànk lay lay toog jàpp noonu dëng mu tubaab bi nee na boo ko tiimee di ko woo du ko dégg da nga koo tiim naa ko Ahmadou Mbacke waaye du la wégg booba méditation lay def tafakkur nga xam ne yéeg na bu yàgg te diggante boobu diggante bu riis la méditation moo gën a gaaw yóbbu nit ki ci boromam mooy xalaat nga xam ne da ngay concentré wu rek ci benn ruq jël benn tomb ci sa borom rek di ci xalaat bu la neexee sax nga xalaat ci sa jëmmi bopp ji ni ko yàlla composé ba nga doon nit wala ci jeexital yi nga xamante ni suñu borom daf koo sànni ci àdduna bi waaye nee na moom noonu la daan def mu wax ni bu guddee bu xasee julli gee ba pare nee naafila lay def ak jàngar xuraan mu ne gis naa ni këram yu bari yi mu wut bëgg ay kër taxut mu wut ko daw nit ñi moo taxoon mu mu wut kër yi ni kees yu bari lay wax kees yu bari yi mu dagg kër gi nee daw nit ñi motax tax ca dem muni len rek la meunta expliquer ci seigne touba moy suy wax ak yow sa yaram yep koy deggando kon koku amon na emploi du temps waxtom dawut nen te foofu yi mu nekkon ci la yaron mak ñooñ yi mu andalon foofu yi la len tegon ngir bëgg seen waxtu ñu jéxalé ko noonu mo taxoon mu len doon wax ni len na ngeen wacc ci te sañ ci der yi te muñ nelaw yi ba dem ci bàmmeel yi su ngeen demee ci bàmmeel lu ngeen bëgg tëdd da ngeen ko tëdd ne leen ab tëraay nga ca kanam da nga tëdd ba tëdd loo a tëdd kon kooku waxtu wuy sànku waxtu wu ci nekk ci këram amul ku am jot ngir tok loxoy kese waxtu wu ci ne mi ngi soññee nañ dem barab sangam jang fa mi kamil alquran nañ dem barab sangam jang fa nangam nit ñi da leen di tekk par kenn yow defal barab sangam nga jang fa khasida sangam khasida sangam wala naafila sangam de ko jox mag ñi li ñor ci salatu ala nabi yep señ bee ko dag jox leen yu ci bari moko ko tënk di leen ko jox jangenu alquran yi ci bari mo leen ko doon wax waq alquran yi ñu ko jang ni nga xamne waxtu ci bim fi nek amut daram luy neen seeblaat wax na ko nee na maa ngi tëri gannaaw seigne touba la xew ci yoon wi ma ngi tëri nee bim fi nek ken ñemi wuk mom kay da ngay ne ci dara di yeungu ba nelaw gand la epp la doole parce que nelaw nature la ci dooma aadama nelaw du gatch de nature la waye li ban moy xababal ci ndax fa joge du fa jax te fim jëm du fi doy bo yendo wona nelaw ba timis nga yewit fim do ni bo sel mo ju kon fu muy ñëwee du fa jeex taxawaay bob yi nga xamante ni moom la mag ñi doon taxaw ci sàmm seen waxtu ak man koo jëfandikoo ci jëfandikoon woo xamante ni ni dana méngoo ak seenu dundin mag ñi ñàkku ñëwoon métier de fi mu doon ni booy wax day am na ñoo xam ne ah loolu di ko topp doo liggéey mag ñi amoon nañ métier. don nañ liggéey liñ wara def lepp def nañ ko té taxout seen waxtu sànk seen waxtu dafa riche trop trop te li la koy may nga man ko xol bu baax baax deug moy da ngay sétlu mag ñi dekk yiñ gor yépp ay wag ko gor wag mag mu nangu jaasi ak simiñ te mboolem dekk yi mag ñi bayon goron té doon ci liggéeyal yalla fi mu toll nii borom tracteur yi mënuñu koo bay dëkk bu fi mag ñu goroon rek fi mu toll boo demee la mag ma am ci njaboot ñëpp ci biir dëkk ba lañ dëkk te teewul suuf sa am na luy boy te mag ñi bañ cee dëkk tollu ñu noonu te fi mu doon nii mag moo ci limoon fi mu doon nii am na téeméer wala junni bu topp ci moom boo xam ne bu mag moom amuloon duñu am mag ñi fuñ daan dem seen tànk leen fa yóbbu lu ci bari walla ñu war fas. li borom naaru góor yi doon rambal fim mu doon nii borom yi guñ ko dajal ndax ñak jot mais jot gogu ci lan lañ koy def ndax jot gogu fimi jexé ci la wara jex dedet jamono indil nu lo xamanteni nak ñun ñepp xamnañ ni passane la dorog la bo xamanteni ni xass mus do tor ci genn wala bok lay tax nga genn ci sa du lako jaral te baaxul ci sunu dund nga gis ni ci nouvelle technologie bii génn nga xam ne daanaka internet bi fi mu doon nii bari na ci nit ñoo xamante ne nii ca lañuy ñuy fanaan bu ñu tëjoo seen biir néeg nga defe ni tëdd nañ ñu ngi ci internet bi ba fajar nga xool diggante boobu li nga fiy ñàkk ci ay rakka ñak ko fi ci ay salatu ala nabi ak istighfar. Nek ko ci lu amul ndariñ lo xamanteni ni So genné amut ben jeexital bu mi jeexital ci yow budul gën la bëgg lo aduna gën la ko xemeem lo waye du la mukk sa digg ak sa borom gisat ci itam ci li yàqu ci waxtu ño xamanteni ni saa yoo taalee Facebook bi gis leen nga xam ni daanaka moom dangay ngay jàpp ni fii mooy seen biro bi ñuy liggéeyee te àdduna dong la dara lu jëm àllaxira nekku ci àdduna képp la gis ci ñoo xamante ni fi mu doon nii daanaka dangay ngay defee ni vocal rek la ñuy liggéey WhatsApp bi sànni rek ay vocal te benn vocal bu am njariñ nag doo ko ci gis boo xamante ni daanaka bu tekki dara la sa waay sa na nga def gëñ naa la dégg jeex na coupé sànni keneen ci loo ne yu ñàkk fayda yoo xamante ni ni du dara gis ci itam yeneen lu ci nekk ci biir muy partagé te li ñuy partagé dara baaxu ci danañ romb téeméer yu baax bàyyi ko fa jël benn bu bon fexe ba influencé ci ay nit yoo xamante ni nii xamuñu ko woon seen kumpa nga fay ci sa xaliss ba paré sanni len ko nga xamni ya nga jappalé saytane ci yàq gi mi yàq saway deggal diw lim wax diw dana wax une heure de temps ben 30 secondes la joom ci ben bat une heure de temps yépp dañ koy dag 30 secondes yoyé lañuy couper kenn ku ne sanni lako ni la deggal li di wax wala xol diw fi bu ko defee muy jokk jolaatoo di jur ak nono akum bañeel di jur pas-pas yu wàññi ko te loolu nag nun ñi ci gën a gaañu mooy nun nun murit yi nun moom noo ci gën a gaañu ci wet googu ndax daa bari luñ ci xam luñ wërdu woon a xam daa bari lu feeñ loo xam ne wërdu woon a feeñ daa bari lu lu agsi ci ñun loo xam ne wërdu woon a agsi mit la woon boo xam ne dañ ko daan wóoy tey lépp nee na foog ci biti te loolu rek moo ko yóbbee muy jot gu bari gi nga xamante ni am nañ ko te ak jot boo ko amee lu ne da nga ciy dugg danga dugg ba dugg ci lu lay lor te dara waralu ko lu dul jot gu bari muy séddale lu bon ak làqutu ci gannaaw internet bi sa sama xoolal foofu jamono tollu ci koo xam da nga ko wóolu ba dénk ko sa bopp jàpp ni moo la tane ci yoon wi jëm ci suñu borom kon naka niti àdduna yi fi ñu jëm ñun xamatuñ fan lañ jëm yu doy waar yoo xamante ni mi ngi am xoolal YouTube bi nga xamante ni ña benn bu baax bu ñu la tegal tegal nañ la ñett yu bon ci suuf te foo mën a jaar danga ko xool. te xool nga dong fi mu doon ni danger la ndax mën na laa jural la neen mën na jural la ci xeeti mooy yàlla mën naa indi itam beneen jëflantin woo xamante ni ni bokkut ak li nga xamoon waaye ubbeeku gu àdduna ubbeeku nga xamee benn pantar la ñun ñëpp ñoo ci dànkaloo lii xew ñun ñëpp doo ko yëgandoo loolu tax na fi doon nii bokk yi rawale sa bopp jafe na sëñ touba nak da waxoon ni aduna da melni jëm bu bo xam dafa sax ba ni lepp de ba wow korong nit ñepp duggu ci biir saytaane dox leen gannaaw taal bu ba fofu la aduna tollu nga xamni kon mucc jafe na ndax sëñ touba daan it so xel mom du solution mag ñi ni kon kon luy taxa mucc ginnaaw daw du taxa mucc mo ni da ngay fexé ba fi nga nek set dañu tollu fim tollu toll kenn ku ne réparer sa bop xol say erreur xol say défaut sa yow siggatee xol nit gis ci sa jëfee bop sa défaut bop nga rectifier ko ya ko uppi défaut fop fofu lañu jamono toll ñu wara rectifier li na ci ñun te jagut nga gis ni so gisee lu bax sa waral ci tasaare ko bo gisee lu bon du ma ni kenn du ko partagé de waaye man du ma ko partagé waaw du ma ni kenn du ko séddale waaye man du ko séddale kenn du ko xamee ci man ndax benn suturas jullit la bu xottiku nga tasaare ko wala erreur la bu nit def nga tasaare ko wala nit la koo xamante ne ni xëy na am na wàcc waay ci biir nit ñi nga bëgg koo diaboliser tax nga tasaare ko ngir wutal ko ay noon bu boobaa ànd njullit ga murit saadix gi ngay woote anamu taalibeeg sëñ Tuubaa gi ngay woote ndax dëgg la ci yow te sëñ bi ñu in wi waxul wa faal yéeneel te wax te jëf aw yiw sëñ Tuubaa ni boo ko defee danga nga mucc te ndigal la de in wi la yéeneel waxul wa kon nga gis ni faw ñu siwaat xoolaat sunu gannaaw damay wax nag ni rétroviseur bi ko tubaab di def ci waxtu bëgg lu rafet taxut daa bëgg a gis la ca gannaawam muy seetu bi ndaw bi ne ci kanam ak bi ne ci côté yi rafetal oto taxut tubaab bi def ko ci waaye toujours dana xool ci rétroviseur bi sëgg xool montram léegi nga xool mu yokk vitesse am wala mu duble mooy ci lay dox moo tax noonu itam buñ bëggee xoolaat sunu àdduna faw ñu xoolaat sunu mag ñu baax ñii fi doon dund ci lan fan lañ tegoon seen tànk xool nag fi jamono toll bu ko defee danañ xam ba xam danoo war a fet di liwaat sunu takkaat ko wala danoo war a fiddili wala filli loolu gone yi wax naan filli mooy amaat waneen xel wu bees boo xam ne moom la ñuy daw waaye xel wii nga xamante ni fii lañ toll moom moom dalut samam xel man man laa wax de dalut samam xel xaw ma nag kaneen parce que nit ñi yëg-yëg yi wuute na waaye man dalut samam xel ndax yàqante bi jëwante bi tuumalante bi sosolante bi te yooyu yëpp dara du ci dëgg bañ ko la jiitu ci àdduna rek te loolu suñ borom a ko def ñi jiitu suñ borom a leen jiital ay pexe jiitalu leen té da am lo xamanteni señ bu ci nit ñi yewu won da nañ gëna mucc bu baax moy baax mooy saytane yi nga xamanteni iblis da ko yor té jox ko ak njabotam ñu diko liggéey muy tasaaroo nun ñu xol fañ ca yem damay liir ben hakim bo xamé ben way da ñew ni ko diw da la saga ndey mu ne ko ah ci téréb jëfum lañ ko def de man kenn bindu ko sama téréb jëf way la ki la saaga ci téereb jëfam lañ ko def am ku ñëwaat ni ko diw de li mu la wax nee na la nangam ak nangam mu ni ko yow nag damaa defoon ni doo doon bunt ndawal seytaane li muy yebal ci man kooko deetu dikk te fi mu doon ñàkkiwu koy teggin wax ko dara waaye gindi na ko ci àdduna xamal na ko ni ñu war a dund ci ni ko transféré ay wax yu dul noona ak jottali lu ñaaw du métier te am na nit ñoo xamante ni loolu dong lañ man seen appareil loolu dong lañ ciy liggéey bu ñu xasee ba tegale seen i tànkatal partager rek agit di sos ci bir ndax technologie dafa avancer luma neex man nako sélectionner ya? envoyé lok nga defé ni deug la te fekk du deug yoy itam daf daf ci am sélection yu bari envoyé lok ko jël kàddu monte ko no xamanteni ni dana lako envoyé ni la diw la te fekk du diw jël ab image def ko no xam mo la ko envoyé ni la ki diwo do ko wedd te yoy yep yi iblis di jëfëndiko rek la te mom la nu suñ borom wax ni moy senum non leen ko ab non kon mat na bàyyi xel bu baax rawatina kaddu yi jip surtout ci digënté goor ñi ak jigéen ñi nga xamné gàcce la te léeg-léeg ab vocal rëcc parce que yi dañuy lancé rek léeg-léeg ñu sànni la loo xam ne soxlawoo ci dara léeg-léeg ñu tas cib sëy léeg-léeg ñu yàq ci ab diggante léeg-léeg ñu yàq ci nit ak i sëy ak i parce que day day jumtukaay boo xamante ni ni dañ koo yorte te suñ niveau intellectuel ak gut ci appareil bi appareil bi danoo sut danoo rawee lu bari moo tax bu ma sañoon. ñen ñi sun borom may tuut ci da nañ ko gëna moytu rawati na ñi ñi woy ay kilifa kilifa mom buma ma man du wax ci appareil wala appareil mom kam cey waxal moy kay dama la soxla nga ñew mu wax ak yow lamuy wax ak yow nga dellu wala heure sangam soxla na la waye bu sañon mom moom dee ak ak waxtaan yi dañ ko ci bayyi parce que da ci am nit ño xamne dañu sérieux wut wax ak ñom ñu ngi enregistrer li ngay wax ñu bare bare nak seen appareil lool lañ ci def non lañ ko programmé ku mëna wax ak ñom dañ ko enregistrer su doon yam seen digënté ci seen seenu dëggu nga mais da ci dul yam bis ngay wax ak mom naa ko diw de nima ko nawé nangam ak nangam la ah cham xala diiw kay ma tégal la moma rawati na nak jigéen ñi so sañon dañ leen bayyi xel bu baaxa baaxa baax ndax day bok ci boom yi nga xamantene mom la saytaane di rab diko ko saytane ab liggéeyam dafa efficace pour nga xam ko day jafé dañ ni ben ben nitu yalla da ñew fekk iblis mu yor wantaay di upp kenn kuy nelaw ñaar lañ kenn ki day julli ki ci dess di nelaw iblis yor wantaayam di ko upp di upp ki nelaw ne mané ko iblis dal ya bari xaan yow ki nga julli amoo ci mom soxla li upp ki nelaw mo ni ko noppi limay def dara nga ci xamut mo ni ko gis nga ki di nelaw borom xam-xam la bu yewoo julli gi day defar te waji julli gi bu way mënu ko defar wa ji julli gi yàqu na waaye mënu koo defar te ki dina lo mom borom xam-xam la bu yow julli gi ya-, defar motax mom lay upp ndax bëgg mu yànjoor fim ton ni fofu fofu la jamono toll ñun bo waxe fe ñun la ndigal amatul ki lay wax ni ndigal amatul mom jox na la ndigal ndax bëgg na nga gëm ko mom so señ bi waxe ñu ni warut wax lolu su ñu ni señ bi da wara wax wax li da wara wax. warul woon a dem barab sàngam barab sàngam la waroon a dem li tax nangam lu tax nangam te yooyu yëpp mooy wayafal li nga xamante ne ni moom la nu mag ñi ñage woon ba seytaane yi amuloon ci ñun bunt yooyu yëpp bàddi na ko te ñi ci mën a mucc daa bëriwul. yoloon ab xare am ñu ma am yaakaar ci ñoom wuti juntukaay jox leen ko ñu di ma ko delloo si ndax du ma ko téye moo taxoon mu wax ni wa min makaidil aynil mujrimi saddul muridin ani taalumi bokk na ci. xosi gi ma saytaane xosi moy dox gi dox diggante mouride ak ak daanu kat yi ñoo upp ci yoon wi te ñoo yor doole ji ñoo ñoy dox li ñuy jall borom xam-xam yi li wax lepp ñu sanni ci poubelle yi waye nak wéet bu mu tax ñu delu ci gannaaw nañ continuer rek deug rek moy mujj te serigne Cheikh Mbacke daa waxoon ne alsimu tariqal haqq wala yaqurukum qillatu salikin na ngeen soobu yoonu deug te neewi andando bu mu len ci wor yëf yi lu mu xumb xumb xumb xumb ala kulli haal dëgg rek ay dëgg te buñ ca àggee danañ xam ne dëgg rek ay dëgg sëriñ bi néewut ci téere waaye li mu bëgg ko xam ci téere la ne moo tax sëñ Fallou mi jeexaloon dundam ci jàng bi mu jógee Mauritanie Maroc la dem bi mu jógee Maroc dem Libye jóge fa dem Égypte fa la jeexale licencié na bi muy ñibbisi toll ci 38 ans 1978 diplôme bi mu jàmm 78 décembre 78 la ko mu jàmm safulaan février 78 mars sëñ Cheikh nelaw 79 mu ñibbisi bi mu ñibbisee sëñ Mbàkke Madina la fekk mu boole ko sëñ Mor Jeng mu wër réew mi ngir fàttali ko ab xame ak feddali wàllu wëllëre woo bàyyim siqoon ak doomu aadama yi waaye ñoom itam ñu xamal ko diirëb lim absenté ñoom ci liñ ne woon ndono bala nga koo sàmb da ngay xam ndono li lu mu doon te ndonal sëñ Tuubaa jàngale ak jàngale yar liggéey jaamu yàlla sëñ bi bàyyiwu fi ay tabax bàyyiwu fi kër bàyyiwu fi oto du compte banque lii doon la fi bàyyi yar jàng jàngale liggéey jaamu yàlla ku ci néewut néewoo ci dara suñ noppee yar àdduna yàqu na buñ noppee jàngale nit ñi ay bàyyima la ñuy doon jaamu yàlla moom ku ko deful ñàkk nga perte nga ndax la neen looy sonn lu dul loola bu bis dana ñëw nga xam ni la nga doon sonn du dara bi mu ñëwee ci dil siwaatee sëñ Mbàkke man ne yebal ko mu sanc si fii ci dank itam liggéey bu am solo la fi doy mooy fexe ba benn la waa tund wi lii du woon mel ni penc ay pénc yu bari la waaye ci jikkoo la leen convaincre du at du alal jum yoroon di ko tibb di leen jox jikko sëñ Moussa daa waxoon ne doomu aadama yëpp ma leen gën a sol ci menn mbedd waaye mbeddum teranga lay doon mbeddum teranga rek ci nga mën a yilife ñëpp waaye doole wala doole sayir wala doole batin joo mën a yor ba tax nit ñëpp topp sa gën a amul yàlla joxu ko kenn kon ci jikko tedd ngay jikko ki la fexe ba dajale rassembler penc yi ko waroon yëpp te ñi ko fi penc yooyu fi newoon yëpp ci jamono sëñ Moussa lañ fi nekkoon jiitu na ab juddoom waye mu wan len ci jikko lo xamanteni tax na ñu fekk ci ko ndax woor na len ni lim len di defal du ak yaq ak defar la te moy kay len nu benno te ndigalul sun borom la yonente bi fu musa ñew dajale do ngay liggeem fexé ba nit ñi and fexé bañ wétal yalla ñaar yooyu dong doon liggéeyu yonent fexé ba nit ñi and fexé bañ wétal yalla ndax sun borom bam ne fa aqimu wa tu zakat waxtasimu billahi la ci tek taxawal len julli joxe len asaka and len ci yalla ko japp ne fim mu doon nii la rek buma nexé def ko mo nexu du ko def da nga àggut ci kiko ko doon digle waaye boo àggee ci kiko ko doon digle da nga xam jëfé won ko mo gën ci yow ci la nga ne té nit ci boppam daa mënta beru niko yalla bindé binde mënta beru ndax boy dooro judd ci loxo ngay ne so fi yagge touti ba japp ni manal nga sa bop bu boba bo de goro da nga soxlo soxna bo de jigen da nga soxlo borom keur kon xamni mëno dem yow dong so màggatee da nga soxlo ndimbal bo de ci loxo ngay mujjat kon nit ta beru kon lu mana nit mëna a yëg ci bopam ba japp ni warna mëna bero bewte beru nga lay doon motax wala fi sa coupe ciment bu yëgee bopam bani duma buru wetup suuf dana yeex man lañ koy doyee ndax do am jari ko nongi nak no ngi jéggalu bu baaxa baax waxtu yi xawna guddi na yeneen yu ci war noo ngi balu bu baax a baax nag wax ji képp ko mu laal rek noo ngi la ciy jégalu te xam ne jubluwuñ ci loola laayante biir rek lañ ci jublu ak fàttalante ndax jamono daa toll foo xamante ne ni lëndëm na te lii tarxis loo nit ñi bari na te am na ñoo xamante ñàkk xam moo tax ñuy def waaye la ñuy def buñ xamoon ni lii moo ciy juddoo ba léegi bàyyi nañ ko ñëpp lu baax lañ bëgg Cheikh Fall Baye Góor nag daana wax ni koo gis aw yoon lay laajte waaye koo ca teg mu mer loolu mooy yoon ci boppam moo jafe wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw euh, Serigne Moustapha Mbacké ibnu sëñ Fallou moom Cheikh Amadou Moustapha Xaadimu Rasuul ñoo ngi lay nuyu nuyu bu gën a sell ñoo ngi lay ndokkeel ñoo ngi lay sargal ci bés bii nga xam ne jàpp naa ne amoo bés bu ko ëpp di ñaan suñu boroom kàttan la dëgëral la nga yàgg koo woote yàgg koo teewee at mu jot di gën a rafetlu teewin ñoo ngi nuyu bu baax sa mbokki bopp yi nga bokkal Sëriñ Tuubaa ak sa mbokki bokk yi nga bokkal Cheikh Mamadou Moustapha te ñëw wuy si ci wuy si wu rafet comme ni ko suñu Abdou Khoudoss tuddee léegi loolu bokk ci li taaral bés bi ndax woote ñu wuy si la baax na waaye bu say mbokk jiitoo ci la te suñu borom defal na la ko ñoo ngi nuyu kilifay dëkk bi bokk na ci imam bokk na ci Sëñ Fallu Gay mi Sëñ Fallu Jeng euh, mi nga xam ne moo waroon jël kàddu ci fa mu bëgg a jël sama kàddoom sof ko ci sama kàddu loolu di réew ci ñun ndax mooy suñu kilifa bu ñu fi duggee ndax mooy borom dëkk bi ndax moom nga fi teg ñoo ngi nuyu mbokk yi jógee ci barab yëpp nag fekk si mbokk yi waa daal sam comme ni ko suñu Abdou Xus waxee bari na tund wi yëpp teew nañ fi waaye Touba ak feneen ak feneen teew fi ñëw bokk ak yow bés bii bi nga xam ne ci ngay fàttaliku sa waajur bu baax wa li ci sëñ Amadou ngeen wax léegi seere la ndax dund nga gàtt na waaye am na njëriñ ñaan suñu boroom lépp lu ñu fi ñaan te yéene ko yàlla na ci jot suñu boroom ful ko te ñu koy ñaan yàgg koo ñaanal te nga teewee ko yow Mbàkke ñoo ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp kàddu yi sax dañoo xaw a bett ndax ñun ñaari tànk lañ fi ñëwee ba ci jiitu ëpp ci solo. mooy bi fi indi ñëpp rek mooy tànk tànki taalibe ñoom wuyu si la di sàkku barke ci ki ñuy ñaanal tey ak ki ñuy fàttaliku waaye di lañ nokkee yow di la ñaanal nga yàgg koo taxawee yàgg ko fi nga wut sa wut bii nga fi ko wut yàgg fi lool nag ba ca topp di dogal bi yàlla dogal ci ñun rek ñu ñuy wooyee maire bokk rek ci liggéey sëriñ bi rek ndax sëriñ bi moom danañ ko mën liggéey am na ñu ne ci daara ja am na ñu ne ci daara alxuraan yi am na ñu ne feneen ñu ngi dañoo bëgg rek suñu toogaay bi nekk ci toogaay yi liggéey sëriñ bi rek sàkku bu baax nga ñaanal ñu ndax bu ñu xoolee mukk ay maire xool ñu ab taalibe rek loo ñu war def loo rek woo ñu def loo ñu ko suñ ko mënee def ko suñ ko mën a wuti suñ ko amul ñaan ñaanal ñu ñu am ko rek dëkk bii di Taïf ak li ko wër nag xaw naa jafe xaw naa yomb dañuy sant yàlla rek lañ la waxoon daaw lañ lay waxaat ndax lañ bañ ne ko waxee daaw mu dugg seen nopp daa mel ni suñu borom da caa def tawféex ñun mënuñu dara nag ay tànk lañu rek waaye am ngeen barke yéen sa barke boobu ci lañ bëgg sàkkuwaat tey ci bés bii nga gën ñoo ñaanal rek fépp ñu fëgg rek ngir indi tayif rek bunt bu ubbeeku bu ñu indee bokk askan bi loolu rek lañuy sàkku ci nga ñaanal ñu ko ndax ku bokk ci tund tayif moom boo amee yéene defar rek de sàkku ñaan rek jàpp ne la ñëw lu ne bul ci gis sa bopp gis ci sëñ bi rek dànk ci ak dëkk yi mel ni moom li fi war a am bari na te lépp dina fi ñëw nag muy man muy sama morom ku ko fi indi dana fi mën sa dana fi a ñëw dana fi ñëw waaye dañ lay ñaanal xam naa lépp sax moom may def lépp sax moom yàlla rek ku man waaye nag li fee yaa ngi fiy toog daal lépp loo bëgg dañuy toog fi ñun yàlla na am suñu ay rek ndax gëm nañ ne lépp loo bëgg cër yi ñuy séddale ci kër Cheikh Mamadou Moustapha yàlla bu la ci gën a ëppalee yéen nañ la ko lool jaxasoo gi ñu jaxasoo yow taxu koo yàgg waaye gis nañ ci yow bëgg dëkk bi ku bëgg dëkk bi ci wàllu àllam yëpp dëkk bi boo sañoon lépp lu dëkk di am di koy am ndax dañuy waxtaan ak yow te xam nañ ko ci yow ci loolu nga teg ñi foo xam ne àgguñu fa ñun àgguñu fa ndax euh, meññeef Cheikh Mamadou Moustapha bu dee ba ñëw suñu kër loolu ci yow ko amee mosuma ko am. rëy na ci man lool nag ci walaa ko ñàkk amee ma ko nag kon loolu baax na ma seere ko ci mbooloo mi wax na ñun sab taalibe bi lañ du ñu sa maire dañu liggéey loolu soo saa soo ñu war a liggéey loolu liggéey loo ñu te ñaanal ñu nag lépp loo bëgg ci ñun rek suñ ko wutee am ko ñi ngi sant ñi fi teew ñëpp kaddu yi mën naa wañ a bari ndax bi ji wax ci kanam kilifa yombul ñi ngi sant ñëpp di ñaan yàlla yàgg fee teew saa bu ñu fi teewee dëkk bi di gën jëm kanam rek sëñ bi sëñ bëgg-bëgg ci dëkk bi sa buñ fi téwé rek na am leen lu ci dolleeku la ñu gënal nag su mënee am ya lañ ko fi indi loolu mooy noonu lañ bëgg sëñ borom nag na moy dogal ñoo ngi lay sant bu baax di la ndokkeelaat bu baax di ndokkeel taalib yi fi téw yi yépp di nak santaat bu baax ki nga xamne nak ñoo boole ak mom mu ne ci dëkk bi di El faru Fallou mi nga xamne ne yaa ñu booleeg mom ndax ñun koo ñu jox ñek lañu andal nak waaye mu neex àndal lool bëgg dëkk bi lool sant nañ bu baax a baax kàddu yi mën naa gën mën naa bañ a gudd dañu ñaanal rek saabu bu sa xel nekkee ci dañu ñaanal rek te xam ne bu ñu sañoon li nga bëgg ci dëkk bi dañ ko ànd ak yow wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu بكرم وعشيا كالمجانين زمان وبكم وأمي وابوكم وأميان كالمجاني ثم وابوكم وأميان كالمجاني مجسومان Come on. وابدلي اليوم أضرارا تلاسمني ولتكفيني كل شيء خديعني

سلم تسليمي بالكرم على نبي سلم تسليمي بالكرم والقرود إلى أنا في تسكيني أدار مدى بما ترضى من قلبي بشيرا بقرآن القرآن وبنتنا رسول من كمام لك القرآن قرآن وبنتنا رسول من كمام أمامي وبنتنا رسول من كمام قد كفانا كل تامين بقرآن دائرة سهول مقعد البرية عند الله منزلة أمد من تبت دعوته وفي البرايا سسدادا متى وكل ياسر بلا انتهاء إدي جميعا صراط المستقيم وبسيم كلنا المستقيم وبسيء كلنا بلا سقيم لك خطاب يا خريب يا مجيب يا من به لسمني خير وجيب هبري ولي لسي نقد تعلقهم بها ودن به لخير من يا إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود والمعبود بك عليك يا رقيب يا من بي ينول كل خير يا صراط المستقيم هب لنا ودن بي يخبتنا من هب لنا يا صراط المستقيم هب لنا ودن بي يخبتنا يا صراط المستقيم هب لنا ودن بي يخبتنا من قبلنا addi sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul sëriñ bi njaboot yi ya ak kan, bokk yëpp ñoo ñu ay kàddu yo xam ne dañ ñu jot jottali lo muy waa tund ak magi dëkk bi mboolem daayira muxlisina wal muxlisaati ñëpp muy kàddu goo xam ne mbubb la mu moo xam ne da ëpp nañu ngir ñu solal ñu ko waaye dañuy jéem rek kàddu yu nag du kàddu lenn lu fedd liwaat jaayante boo xam ne dañ koo jaayanteek sayxul xaddiim ridwanullahi alayhi di ko sukkandikoo ci pas-pas bi nga xam ne moom la saxaabatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amoon ba àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di la seereel dañ leen a jiitu rek la sëñ bay fa mu yebal Seydina Ousmane muy kenn ci moom defal ko lépp mu jël ñaari doomam jox ko waa waa xorey sin téye ko yonent salaa salaam toog foofee xanaa kenn waajut ne tey danga joxe sa ruu yonent bi toog ba mu jàgg mu woote daal di ne képp koo xam ne nangu ngaa joxe sa ruu ñëwal jaayante ak man saxaaba yépp ne ko duñ jóge fii te Ousmane ñëwul wala suñuy ruuf yépp fii la yem waaye loole ñu ci jëlee woon dong la la bëgg ñu toog fa sax fa. ba waa Xuraysin xam ne ñii duñ dellu gannaaw ndaw lañ yebaloon ba muy ñibbi Xuraysin dafa wax saxaaba yi dafa wax waa Xuraysin ne ko saxaaba yee ma gis de bu fa kenn desoon bu ñëwee mën naa faagaagal Xuraysin gépp ndax bu yonent bi tiflee sax ñu raayoo ko ci seen i bopp leen yàlla fayee jar na ko radiyallahu anil muminina is yubaayi'uunaka sajar lorat la mu jariñ radiyallahu anhu wa radu anhu la mooy yàlla am nañ gërëmal yàlla te la ñun wut waaye yàlla gërëm na leen sëriñ bi njaboot gi nee nañ loola lañ bëgg moo tax pas-pas boobee mag ñooñ saaba yi amoon ñu am ko sëriñ bi njaboot gi nee nañ seeni maamaat ñoo àndoon ak sëriñ Touba ñoo ko fekk woon xumaag metti woon na ñoo ko fekk ci yéen rey nañ ci ñoom ñu bari ñoo daan dajale seeni addiya di ko indi njaareem fi amna fi ño xamne ñi ngi ci njabot gi ci yobanti bi ma lay wax ci lañ bok sëñ Abdou Wahab Diop bayam kërëb bam jaayante ak sëñ Touba ay bokkam yépp dañu taal kër gi yabal njabot ga ñu del ba mu ñibisé dañ ko bind 14 18 ne ko da ngay dem da ngay dem da ngay dem armée ngir tag bëgg gi jaayante ak sëñ Touba te neexu leen waaye taxul mu dëpp keroog ba mu ñëwee ca kër ga dóor nañ ko ba nga xam ne yére yi mu soloon bañ koy tàggale diw lañ sotti ci kawam ngir mu mën a dañ waaye taxul mu delluwaat ca loolee ñu ko doon dellu sëriñ bi rek moo ko jar jaayante googee nee nañ ñi ngi woon ca foofa de waaye tey ji ñi ngi koy fetliwaat sa digganteeg ñi loola mooy pas-pas bi lay seere seet mooy ñoom ñii xanaa ñoo ma yónni seeni baay ñoo àndoon ak sëñ Manoune Soufa ñoo taxoon xelum Cheikh Moustapha dal ba muy wax ne fu ngeen ma fare de wala fu ngeen nekk sama xel dana fa dal indi leen fii kenn ku ci dëkk ba nga jóge ba nga fay jóge sëñ Mourou lam la wax mooy sama reeru laa lay yóbbu xamuñu woon ne fii lañ jëm si tàmbalee ko ci sëñ Moustapha Bey sëñ Siréloo sëñ Malick Mayasine sëñ moor Xayta ñëpp sëñ Moussa Fall ak mbollem jabar gep seigne Mat Lamin waa kër sëñ Mat Lamin Gaye ba de metti na lol ndax ab gor lañ fi fek waye pas-pas ba sahaba ya amoon rek mom lañ am pas-pas bobu lañ am moy pas-pas ba nga xamne njabotuk Cheikh Moustapha nga xamne kenn la ñoon ci ñom lolé ñu amoon mom lañ bëgg fi de amna ci njabot gi ño xamne seen imam ño andon ak Cheikh Moustapha juma je bu taxawé ñom la ndax dëkk bi yewenal jumaa Touba motax mu taxaw loolu moo loolu la len Cheikh Moussa waxoon bam ko fi indi ñoñe amna ca ño xane ku ñu mëna tuddu kenn moy seigne Mandoumbe Dia ñu bari xam nañ ak njabotam ñi ngi fi seen paskas agon na ci bi seigne Mounous fa ca xabbaan taw na fa abdir bu yag te tawut tewut ca daara ya diir taw ba di len wër seigne Mandoumbe dafa top bu mu mu yabal ndaw ca donga ya bo demee ci seigne Modou nee ko salaaw bu jant soo te tawut fii de donc ñepp dina leen yow ñibbi seen ñibi seen kër yi bay ndax mënuñoo nekk fi dé la liggéeyal té yaakaaruñ la luddou yaw taw bi duñu wër waaye bam waxé waxee ba kàdd ga daanu dong ba dem ba mu génné jublu penko dafa seen mu tambali jabb bëgg-bëgg boobu ñu bëggon rek lañ bëgg sëriñ ñom ñoo bëgg-bëgg bobé ñu bëggon rek lañ bëgg ñun ñii suñuy bay wala am nañu ko fekk fi bari nañu ko fa fekk sëñ Fallou wote na fi ab liggey amono tol bo boo xam Minam gi la nekkon ak fi ñu bari xam nañ ko ci tol yi jëk ci la bokk sëñ nekk ci Touba nit fi wala ci barab dem ba ca mom mu ne ko mbàkke sa tol ba dana boy ren waye la señ djiba waxon lañ bëgg wali khada ahbaban bihim usiru nuska ci lañ bëgg a bokk mooy ñoo xam ne boo lëkkatee seen maam yooyu defoon na liggéey nañ sëñ Tuubaa liggéey nañ yonent bi ba am ngërëm ñu du ñu puukare woo te pas-pas bi am suñ diggante ak sëñ Tuubaa te di la ko seereel yow ngay seeree si rek ci lañ ko mën a amee kon ñu ngi feddaliwaat suñu diggante ak yow. dala wax ne na sa xel dal la sëñ Cheikh Mbacke waxoon njaboot gi waa Taïf ne leen liggéey bu ma mën a woote bu waa Daarul Islam ñëwee sama xel dal. yow ñu ngi lay seeral lool sa bu lépp loo xam ne sumb nga ko ñu ngi ci sa gannaaw te duñ dellu ñu sa gannaaw te duñ dellu gannaaw loolu ñu ngi la koy seeral ñu ngi ñaanit nga nangul ñu ko di la ñaanal saw fan gudd nga ful fanu Cheikh Moustapha wa fanu Cheikh Mamadou Fadil wa amoon na yaakaar ci dëkk bi lool ñu nit am nañ yaakaar ci yow lool suñ borom nag mboolem lu fi sëriñ bi waxoon. ñi cëpp tek nañ ci seen bëtt té seen bi jaaw bëreegul yalla nañ ko and ak yow té yitté yépp faju sa yitté faju ci ñun ndax lool rek lañ bëggoon alaykum wa rahmatullah alaykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh si Mouhamadou Mustafa Mbacke nee mi ngi nuyu mbolo mépp nee na mi ngi leen di sant te di leen gërëm bu baax nee na mi ngi leen di ndokkeel ci guddi gi ñu weesu nee na mi ngi ci am mbégte lool nee na ak xool bu sedd nee na ci ni ko nit ñi wuysee nee na ca dara la wóor warlu ko dul bëgg lu baax nee na mi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax nee na mi ngi sant bu baax mboolem waa dëkk bi nee na muy mag ñi ak jigéen ñi ak ndaw ñi nee na mi ngi sant bu baax waa tund wi nee na tund taay fépp mi ngi leen di sant nene mi ngi sante bu baax mbollem daayira fi teew yeb ubbe joge ci buntu keur Cheikh Mouhamadou mustapha yi nene mi ngi jital ci nuyo bi ak siar yi nak khalifa general bi fi nak di Cheikh Mouhamadou Mountakha nene mi ngi sante bu baax ak ñaanal tam way di Cheikh ahmadou Muxtar nee ci diko siaré bu baax a baax nee mi ngi koy ñaanal ci sakku mbooloo mepp ñaanal ko suñu borom may ko fanu gudd and ak wër ndax mom sagal nako lol lool ci tek nako fo xanti mom xam na fa kon mi ngi sante bu baax wa dekk bi yépp ak mboole ak ak mboolem ku fi ñew ci dëkk bi ñor la ba nga bay sa yitte ñëw fi nee mi ngi mi ngi sant jankati xasida yi nee na ko ci ci suba ga ñay yoron walu culture ba ci alcorane jak askar ya mi ngi leen di sant bu baaxa baax nee di leen beraluk cant di sant. di sant jànkat xës yi nga xam ne tam ñoo doon màng guddi gi tàmbalee ko Serigne Dame Dieng ba ci Serigne Mbacke Niang mi nga xam ne moo ko mujjee nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax nee na mi ngi sant mboolem koo xam ne teew na fi nee na mi ngi lay sant ca di ñaanal bu baax. nee na mi ngi sant mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo fi teew ne mu ne di wilaaya ak waa axiba ak mbooleem bundu kër Cheikh Moustapha yi fi teew yëpp nee di sant bu baax a baax nag njabootuk daarul islaam gi nga xam ni ñoom ñoo yàgga taxawu bis bii ba tey ji mune lako tambale ca ñett fane bax lo ya nga xam serigne sëriñ Fallou ko dan taxaw ñu dan and ak mom ba bi fi joge ñu and ak mom mi neena mi ngi leen di sante bu baaxa baax ca muy wa darul islam gep neena ci serigne Mamour jeng ak serigne Mor jeng ak serigne bakelo neena mi ngi leen di beral ak bu baaxa baax. nee na gis na seen taxawaay rafetlu na ko lool nee na na ngeen seere ne xolam sedd na ci nee na mi ngi sant bu baax magi dëkk bi nga xam ne ñoo ne ci biir dëkk bi du dale ci sëñ Modou ak sëriñ Moustapha Sall ak mboolem ñi ñu àndal nekk di taxawu dëkk bi ñëpp nee na mi ngi sant bu baax chef de village su dëkk bi nee na mi ngi sant mbooloo mi daal ñépp nee na mi ngi berlu cant nag daayira Muxlisiina bii wala Muxlisaati nee na xolam sedd na lool ci ñoom. seen taxaway rafet lu nako lol, neena mi nga am lol ci niñ jappanté ak niñ taxawo liggéey bi ànd ko wa dëkk bi neena mi ngi doole ñaax bopam ci ñaax mbolam yépp neena jitu ñu gëna sax ci ndigal yalla suñu borom yi neena ci lolou dara jitu ci jaamu yalla ci jital ci benno nee na ci teg ko ci sunna nee na loolu bëggug Cheikh Mouhamadou Moustapha la nee na loolu mooy bennoo moo ko gënoon a ñor ci ak dundam nee na mi ngi ci ñaax boppam ca ci ñaax mbooleem taalibe yi nee na ñu gën a farwaat ci jaamu yàlla yi rek ca yéenante lu baax ca di ko waxante ca fas yéene doon ay defarkat nee na xolam daa sedd ci jataay bi nii mu demee ak ni bis bi demee nii ak mboolem waa dëkk bi ko taxawe nee na lii moom day lu yàgg loo xam ni nee na moom jiitu na ko fi. nee na loolu mooy wane yéen li ngeen nekk dëgg la ci yéen nee na kon cant gi nee na làmmiñam lott na ci wax ko waaye nee na yàlla mi mi xam moom la koy seereel ndax moom xam na li ci xolam nee na xol bi sedd na ci waa dëkk bi lool nee na kon nag mi ngi leen di ñaanal bu baax. lépp li ngeen di yëngu yàlla nañ ci daje ngërëmu suñ borom mboolem taalibe yi ak bokk fi teew yëpp ak fuñ ñu mën a jóge ci Sénégal sant na leen nee na gërëm na leen bu baax a baax nee na mi ngi gërëm itam ñi yoroon wàllu communication bi. mboolem organi sit site internet yeeg ak rajo yi ak organes yi ñu ko bokkal yëpp Murid Info mi nga xam ne moo ko yendoo jël fanaane koo jël ak ak rajo yi lu ci mel ni Ceeñeer FM ak jant bi ak Lamfal FM ak mboolem yi fi ñëwoon ñëpp mi ngi leen di sant bu baax a baax nee na ñoom it feeñal nañ seen yéene. neena mi ngi sant bokk yépp nee mi ngi sant njabootu Serigne Touba ki nga xam ne teew nañ fi dembu li ko tàmbalee ci kër Sëñ Mouhamadou Moustapha ba ci kër Sëñ Mourtala nee na ñëpp teew kenn desut nee na njab mbokk ci seex moom seexul Xaddim yi kër maam Thierno ba ci kër Sëñ Massamba ñoom it ñëpp teew nañ fi ku teew rek yónnee nga seex si itam ñëpp ñëw nañ fi. loolu mooy wane ni Serigne Fallou am na fu ko njaboot Sëñ Tuubaa gi teg nee na loolu nag kon mbégteem mbégteem la mbégteem waa dëkk bi la nee na kon mi ngi santaat bu baax a baax di beralu cant jigéen ñii nag nee na liggéey bi kenn mënu leen ci ak ndaw yi nee na ñu ngi leen di sant bu baax a baax. jërëjëf jëf duma la condamné du la sas waaye sëriñ bi wéré di bari na de nañ ci mucc ci barki sama sowa docteur boo jàkkaaram wax ko la la dal bi ndoxum siti mi nga bëgg a tas réew mi jàngoree kajoor solal noonu bët yi bas tànk ruux mag ñi jul da nga ko reegi lekk ba sur këmadu ko ku lekk ñu rees bi jabet LCR cancer ay way sëñ bi ci buro ci buro pays akum fajj bañ bu metti akum tab sol non loolu lool waaye sëñ bi xam lu gëna a ak ñak xam lu gëna a garaawa mer yalla ci mu yàlla mosu ci barkam do bagge gaay ko wax ko wax mu fuñ fuñ rek di mer mer jigéen ñi ñu ngi sey di ñu bisuwaat ku sey ran bu déwénee gëna a ay way sëñ bi di dimbali bi jëm sax lo xadim lo mëna naa de ya gëna gaw gaaw silibe ya gëna gaw gaaw lépp talal la koy gaay amin barka Seexul khadim ah ki gëna ka gaaw amin ndiglu mi te tank yëpp na dem bët yi sutu ko yëpp arangoy yak togn mi ak wa nen wi ak doye dégg ak ak dem amin dara ji Seexul amin neet bu gaaw lol ërën ju bare ak samñe ak dugub ak mbokk ak sun ak saña amin mbeuti bari ci bir ci bir naat bi gaay yi di japp ak درجة سيلو قديم أمين